يا أمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ينجي تيري تدي ماذا عن الشيخ إبراهيم أنا من لن من أجري الشيخ إبراهيم لن لن من وخ الشيخ إبراهيم لن لن من قمت باي لن لن جانجلي تيري بي مانام مجموعة التعريف بشيخ إبراهيم رضي الله عنه وفائدته ومقدميه فرج لا يتير يو خمنة دفتي خملة باي دي لكن من كو خملة بمجيخ باي غا خملة چدارا لو من خملة لبهم غا خملة لنا القرآن كم من كو تفسير بخملة معاني يبهم يتيو نيجاني تفسير دي خملة لن نيجي معاني القرآن دي خملة فايدو كان من خملة فايدو بايب باي غا خملة چدارا ndax la ci nekk ci xam-xam kenn mënu koo dajal loo mënul dajal nag mënoo xam ne léppam waaye nga xam ne ci dara xam la ay muqaddamam amaana bàyyi amoon na muqaddam ñu xamutoon ndax ku doon jëflanteeg nit ñeeg jinne yeeg ñëpp kooku muqaddamam yëpp sax mënoo koo dajale ah waaw waaye ñu ñenn ci muqaddam yi mu mu andi leen dégg nga téere bi nag góor yàlla gu mag mu cheikh Mouhamad wuldu cheikh Abdoulaye Tidiane am yàlla guddal faram moo ko defar tey mu jëla daat la tey ñu ngi ci mu jëla bi njëkk bi di maagaani Cheikh Ibrahim lan lañuy jëlee ci Cheikh Ibrahim euh, téere bi na am na histoire ni ma def ba jot ci ba am ko am na histoire dama toog bis sama xaatir maanaam sama xalaat lenn toq ci loo xam ne ndeke mu ngi ci mag pay bi ñu ngi ko ñoom xalaat nañ ko ba def ko ba pare man nag maa ngi koy door a xalaat fekk ñoom xalaat nañ ko bu yàgg ba def ko dama toog xalaat wala sax yàgg naa ko xalaat ma ne daal gis naa ne siira bind nañ ci siira yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba dara umput ci ku bëgg a jàng histoire yonent bi boo delloo siira yi nga xam ko ndax bind nañ ci ay téere yu dul jeex lépp leeral nañ ko ma xalaat Cheikh Tidiane <clears throat> ma ne bind nañ ci histoire bu boo bëggee xam Cheikh Tidiane boo delloo ci téere yi nga xam ko te man gis naa ne bàyyi moo leen ñetteel gannaaw yonent bi ak Cheikh Tidiane moom mooy góor gi yàlla tànn léegi ku bëgg a xam histoire fooy dellu ban téere ngay dellu ma gis ne néew na lool ak lim defal yàlla ak lim liggéeyal lislaam ak nim xettalee doomu aadama yi doomu aadama yi waroon nañu bind ci moom ba ñuy ñëw ci kanam xam kan mooy góor gi nga xam ne mooy rajulul ihsaan moom mooy góor gi yàlla tànn ci maqaama ihsaan yàlla diineem ji ñetti xaaj rek la islaam iman ihsaan rajulul islaam góor gi yàlla tànn ci biir islaam mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi moom la yàlla tànn foofu mboolem yonent yi boo ne boo ne ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu boole la seen mbooloo mi di la gëmoo ko waaw yàlla nag moo lay atte génn la ci waaye ñoom duñu la génn kon foofu maqaama islaam la ndax booy dugg ci lislaam rek ñu bàyyi la ci biir waaye ñooñ tarixa moom wilaayatu la ñuy def ci nit ki te wilaayatu ku amul iman mënu ko mënu ko am moo tax côté boobu iman lañ soxla rajul boobu nag ci côté iman mooy Cheikh Tidiane ndax wala yëpp moo leen nandal comme ni mu ko waxee mm-hmm. waaye maqaama ihsaan muy maqaama yëg yàlla ak xam ko kooku moom Cheikh Ibrahima mooy rajulul ihsaan taarix mosu indi <clears throat> ku ni moom te taarix dootu indeetu ku ni moom su ko defee lu tax binduñ ci moom ma doon mbébét ne su ma dajeeg oustaz Ibrahima Mahmoud Diop danaa ko wax muy wax taarixu baay ay maamam ak lañ def ba ci juddoom ba ci ndawam jàngam ba ci liggéeyam ba niñ génnee àdduna mu wax ma bind ko parce que ma histoire boobu réer yàlla def mu génn àdduna fekk <clears throat> mënaguma dajeeg moom parce que boobu maa ngi Medina maa ngi jàngale foofu ci daara Cheikh Cheikh Maye bu ma yëgee ne génn àdduna ndeysaan jooy naa jooy goo xam ni du dama ko ñeewan ci parce que nangam parce que xam naa ne dafa noppalu rek waaye jooy naa parce que xam naa ne xam-xam dem na bu ma xalaatee ne ñu ngi suul kii te buñ koy suul ay ay ay ay téere téere lañuy suul ay mu mujalladaat la daal lañuy suulaale suuf bu booba may jooy tey ko bu yàggut nag ma bind lettre Cheikh Mahi Cissé ne ko daal bëggoon naa mu dikti ma taarix lim xam ci taarix baay ma bind ko mu ne ma am na téere bu ci buñ ci taalif muy maza ani Cheikh Ibrahim demal nga jënd ko dama ko jëndee ma laaj ci foofu Medina amut amul woon jamono boobu ci mbaaxam mu ne boo fi ñëwee dinaa la jox bos nga liir ko yàlla def ci gëstu ma mujj ko am jënd ko eh, ma yónnee ko ñu jëndal ma ko ñu yóbbul ko ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru koor moom moo bind taarix bi mu bindal ma ci ijaaza bi ijaaza boobu laa njëkk a firi tabarukan barkeloo ko balaa ñu dugg ci biir téere bi mu ne 28 Ramadan 1441 hijriya madinati Cheikh 28 ci weeru koor 1441 hijriya ci dëkku Cheikh Ibrahima radiallahu lil wala dil baar li nekk ci ijaaza bi yëpp nag. sëriñ bi ci mbaaxam la ko waxe ci mbaaxam la ko waxee waaye wala yàlla nitu wax ci yow lu baax ah wax ci yow lu baax xëy na du la tax fuuy nag waaye dana la tax sant yàlla ndax bu dul toon sax yàlla def ko muy noonu waaw ñoom bu ñu fekkee guddi ñu bëccëg la sax muy muy bëccëg yàlla mën na loolu waaw moom laa leen nekk loon ci istuwaaru <clears throat> anas bu nadr mbokkam mu jigéen ma Rubayya bu Nadr dafa dem ba ñu waaj ah ba mu demee ba ñu waaj mbokk yi ne mbokk yi kiñ dem ba ñu rek ba sonn ñu ne fayu rek ñëw si yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah yonent ku maandu la ah, ndax dañuy damm ba ñu sama mbokk mi est-ce que loolu mënu nekk. yonent ne ko anas yàlla fayu la santaane rek gaa yi ñëw ne baal nañ yonent ne am na ci jaamu yàlla yi ñoo xam ne luñ bëgg yàlla def ko ba mu bëggee ba mu bañee ñu damm bu ñu mbokkam bi rek kenn mënu su koo dem te pourtant loolu la sharia rëdd dem am nañu mel noonu alhamdulilah am na ñoo xam ne seen wax jërul faale waaye am na ñoo xam ne lu ñu wax sant ci yàlla mu ne téere bi lil wala di baar dama ko jënd jox ko lil wala di baar mu ngi jëm ci doom ju bax ji ashabu salih ndawlu hewen li zi sa'i rabih borom jëf ju tanu ji alhamdulilah loolu lépp ci mbaaxam la xaamili kitabillah ki nga xamni mo yenu téere bi yàlla bi sayid بابكر محمد بشير Babacar Mouhamad Bachir cubb razaqahu yàlla na ko wërsëgal allah yàlla fahma dégg minu ci moom wala ilma ak xam-xam wala amala ak jëfe bi ci xam-xam bi jaahi man ci darajaay ki nga xam ne ulli fa taarif nañu alkitaabu téere bi fi siirati ci histoire am al atira bu neex ba mel ni parfum wa masirati ak ci doxalinam alxaafila bi aji fees bil barakaati ci ay barke والمنح أجاي مي والفيودات أجاي فيدو تربيش بايم كتاري ما نعم يلا يلا ما يكون لولو كي درجة بايم نخمنا مم لن تعرف تربيش أقم اللهم يو يلا ببركتي تبارك في شهرها مم أفيد يلا نببل على مالك يجيك مم تربي السيد بابكر اتنا السمرة ما فيه موت من يتلنك تربي من العلوم تاي خمقم آمين والأسرار غير مبوت آمين والاستفادة يالنا جيرني من هاج تيري بي آمين والإفادة يالنا سي جيرني آمين بها تيري بي وسعي يالنا دوخ على النهج الشيخ تيون سرين بالقويم بجوبا بجاه رسول الله سي درجه تدرجة ينتهي صلى الله عليه وسلم وبسر حضرة النبوة أكسس مبوتم بيب نبوة والولاية أن بوتم بي ولاية وبسر الخلافة أكسس مبوتم خلافة آمين وكتب بن لي دي اجي maye ndigal wa mujizan di maye di aji maye ijaaza Mouhamadul Mahi Ali Cissé yal yàlla guddal fanam lool defal ko barke loolu mooy ijaaza bi nga xam ne ni am nañ ko ci ci ci téere bi encore it firiwuñ ko lu mooy ci ndigalam niñ ko ñaan ndigal pour commencer ko mu may ñu ci ndigal ñaanal ñu ci yàlla ñu door ko commencer firi maada ani Cheikh Ibrahim madxal manam bala muy dugg ci téré bi mu commencé bismillahir rahmanir rahim la commencé comme ñep mu ne kuntu nekkoon na Mouhamad wuldu Cheikh Abdoulaye Tidiane may wax ara di gis al alkitaabata mu bindani Cheikh ibrahim ci Cheikh ibrahim radiyallaahu anhu wa ta'rif ak bi faydati ci faydaam wala bok ara kuntu nekkoon na ara di gis al alkitaabata bind ani Cheikh ibrahim ci Cheikh ibrahim radiyallaahu anhu wa ta'rif ak wa ta'rif ak bi faydati ci faydaam min tarafi ahbaabihi ci côté ay soppeem alxullas yu selli almutamaniina ñañ dénk ala wadaa'i alxadara ci ndénkaane pee bi fardan muy farata sibha ayniin buy këjug jëm maanaam nekk lii xaaturu ñëpp la nag mu ne gis naa ne bind ci Cheikh Ibrahima ak xamle faydom ay soppeem yi nga xam ne dénk nañ leen mbootum xadara bi fardu ayni la ci ñoom wala boog farata la boo xam niru na fardu ayni maanaam kenn ku nekk dafa mel ni sax da nga ko war a def ñu ne ko lu tax mu ne li àndoon ndax li am ba am min xaqil wasilatil uzma mu ngi bokk ci àqi wasila bi gën a mag wasila mooy ki lay yeggali ci yàlla ëllëti bi nga xam ne rabatat ka takkee na la billaahi ci yàlla tabaraka berni wa taala kawe na wa arat ka mu won la tariqal maarifa yoonu xam yàlla wa awla jët ka mu dugal la في غرفة التوحيد سيسالو بيت اليال كلا جوك رجع الله وان لا يون الخم يال دوغل لا سيسال بو خم ني بيت اليال رنغ في فك مانا مو دوغل لا تبنت بيت اليال مانا مو فخ بعدي بيت اليال أم أق أن تكتب عن بين أن هاتيمو ورنغا بين تيمو لتعرف عن قم ولا بقول لتعرف عن قم لبهذا الفضل تبين عن الذي بين خم لا ينتقص دوانيكو وهذا المزاب ak bi la raakool ëllëg bi nga xam ne laa yam du du ŋàcc maanaam du taxaw day sotti rek war ngaa xam le ngeen loolu nga xam ne ngeen la loo xam ne day yokk toujours waaye du wàññeeku war ngaa xam le rëbëne boobu wala raakool boobu nga xam ne dafay sotti ndoxi xam yàlla ndoxi njub ndoxi ragal yàlla te du mos a arrêté loolu war nga koo xam le ndax lu baax dangay fexe ñëpp xam ko ñi am fulla dem wuti ko ñi amul fulla nag toog rek nekk ci lañ nekk ñoom dégg waaye buñ ne man am naa lu baax rek jeex na du ma ko xamal kenn xam leen kon ki la defal lu mel nii war ngaa bind ci moom xamle ko xamle yoonam wali annahu ngir la li xam ba xam min xaqil jiil dafa bokk ci xaqi maas gi al muqbil bi aji jublu si alladi maas gi nga xam ne yu taalibu ko mu ngi lay sàkku bi tawsilil amaana nga jottale ndénkaane gi ilayhi jëm si moom ñi ñëw ci kanam comme sama saar gi fekkewuñ dara ci baay lu mooy rek ñuy dégg ay kasetam ak leneen mag ñi nettali àq la nga fexe ba lañ la dénkoon yow nga dund ko ak Cheikh Ibrahima nga jottali leen ko kon àq maas gi am nañ àq maas dina la ñëw ci kanam am nañ àq an taktuba nga bind la ñeel ko am tilkal ayaam ci yooyu defan war nga leen a fan yi nga dund ak Cheikh Ibrahima te ñoom dunduñ ko ak moom allati fan yi nga xam ne ni lam yastazil la keer wu ñoom maas googu bi zilaaliha ci keram ñi nga xam ne ni keru dund ak bàyyi maanaam bànneexu dund ak bàyyi noflaayu dund ak bàyyi xéwalu dund bàyyi amuñ ko war ngaa fexe indi leen nan la doon dundee moom ak ñu doon dund moom nan lañ doon dundee wala mu qaabil maas bi nga xam ne jàkkaarloowut bi muqulatay tey ci ñaari ndagu bëtam yi bu zuuqa shamsiha fenk ak jant boobu dégg nga maanaam fenk ak jant fan yooyu maas yi nga xam ne ni jantab fan yi doon bàyyi di dund ci àdduna fenkut seen kanam maanaam fekkewuñ dundam mm-hmm. war nga leen a bindal ci histoire loolu la ñuy loolu la defal ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ba tey dangay dangay mel ni booy jàng téere siir yi da ngay mel ni yaa ngi yonent bi te mosul dund ak moom loolu nit def ku nekk def ci am kon mas gi nga xam ne fenkee fekkewuñ fekkee wuñ fenk ak jant ak fan yi doon bàyyi di dund maanaam fekkee jamono yi doon di dund rek lañ ci namu war nga leen bindal ci histoire am mhm. wala mu yestan chiq te nooyi wut moom mas googu ari ngelawam lu neex la al alxadd ba aji nëttëx ngelaw lu neex lu taru lolou lu tey lolou moy ngelawu dund ak bàyyi ñoom amuñ ko yow war nga fexe bañ xam nu melo manam ñu xam ci dara ci histoire boobu wala mutamaayas doxuñ ma baaniha ànd ak garabu banam al mutarannex bi aji jaayu al mutawaajid bi aji feeñal mbëggeel maas gi nga xam ne fekkeewuñ dund bu neex boobu ñu mag ñi doon dund ak bàyyi nga xam ne dafay mel ni garab gu sëq gu nëtëx banqaas yi di jaayu nag di upp upp bu neex nga xam ne nii dafay jaayu ngir feeñal mbëggeeram maanaam dund bu neex bi mag ñi doon dund ak bàyyi ba mel ni garab gu nëttëx gu taaru googu di upp fekkewuñ ko ñoom waaye nettali leen ko ñu dundandoo ko ak ñooñu loolu seen xaq la wala ci dund boobu moo mawtatin junne dee maas gi nga xam ne ni deewuñ ci jamono dund ak bàyyi maanaam maanaam maanaam joxewuñ seen bopp ba jeex takk xam nga mag ñu doon dund ak bàyyi desewuñu dara desewuñu woon dara dara dara te nag nekkuñu ay ay ay nit ñoo xam nii rek ay ay nit simple lañ rek ñëw topp ko wala boog mm, ku ko raw topp ko bàyyi bàyyi ku mel ni moom mosu ko topp ña ko topp ñëpp lañ ko doon taggee dañ laa la wax na moom cheikhu chariante la wala cheikhul xaqiqat la maanaam ndax kii sëriñu charia la wala sëriñu xaqiqa la bu dee si téere yi mu jàngal la ko bu dee xaqiqa seen ëppand moom noonu la meloon ña ko topp woon it ay boromi xam-xam lañ yoo xam ne nii noo mën a mel rek am na ku la mu ngi ci gannaaw bari noo mën a mel melal nu a neex ci wilaayatu ci maarifatu ci xame yàlla ci lasraar ci dégg charia ci jaamu yàlla am ku ci raw mu ngi ci gannaaw baay ci askan am ku ci raw mu ngi ci gannaaw baay ndax askan mënu rëy ba ëpp nekk sëtu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaata shérif ñoo ñoo raase woon ci gannaaw wala sëtu Cheikh Tidiane ñaata ay nit yoo xam ne sëtu Cheikh Tidiane la ñoo raase woon ci gannaaw loolu booy jàng Kaashiful Libaas da nga ci gis lu bari hmm? dégg su ko defee maas gi nga xam ni joxuwuñ seen bopp ba jeex ci dund ak baay waaw nga nettali leen ko ngir ñu bëgg ko buñ deewut ni mag ñi dee woon maanaam ñu jeexut ci moom nu mag ñi jeexe woon ñu dund na mag ñi jeexe woon pour roy leen ci walam tatasaabaq njëkkalante wut xatraatu dammihi ay toqi toqi deretam wa jumaanaatu dumuyi ak ak ronqañam yu mel ni wurus li mawdi sujudi ci barabu sujud ba shukran ngir sant lil waaxid ñeel yàlla mi nga xam ne kenn la almaabuud ku ñuy jaam dafa bëgg wax ne dund ak baay dund ak baay su la ko yàlla mayee jar na nga jooy ronqañ comme lu imaam Buseyri wax waaw jooy waxuma nga jooy bët rek de ndox rek de nga jooy ay ronqañ yu mel ni wurus wala nga génne ay deret di ko ngir sant yàlla mi la may xéwal googu xéwalu nekk ak Cheikh Ibrahima radiallahu anhu wa parce que tamit nit ku nekk ak ñoo ko yàlla tànnal de du daf lay neex rek yow nga dund ak sëriñ bi léeg-léeg eh, loolu sens la may la yonent bi yàlla moo xool ña ko neex mu may leen ñu dund ak moom dimbale ko ci mission Cheikh Ibrahima Cheikh Tidiane yàlla moo xool ñu ko neex mu may la ñu dund ak moom Cheikh Ibrahima yàlla moo xool ña ko neex ñu may la ñu dund ak ñoom ñu nag duñ mas ndax loo am ci teraanga rek ci ñoom la jaar hmm? su ko defee dund boobu jar na jooy ay deret ak ronqañ yu mel nii wurus ngir sant yàlla xale yi nga xam ne nii nag amuñ loolu amuñ dund boobu sant yàlla googu jaaruñ ci nettali leen nu mag ñi doon sante yàlla ci dund ak baay nañ meloon ngir ñoom bu ñu fayagul ñu jéem seen àq la lii nag moom képp kuy muqaddam rek wala kuy taalibi rek yow lay wax ne la war ngaa def li mais moom ci moom la ko yàlla jaarale wali àndoo ak ngir la ne li am min waajiba ko bokk na sa wargar ante yow an taisha nga dund maa xalamika ànd ak sa bik laxzaatin ay gendeeku yoo xam ne lam talilha musu koo jur addunya àdduna wala michalha musu koo seede alwucaatu rambaajkat yi li yum ngir mu fite ngaanaam ngir mu digte la alayka ci yow asraaran ay mboot wa mutaan ak ay xewal fazatan yu wéet yu kenn mun mun am mu ne yow mi nga xam ne taalibe war ngaa fexe yaag sa ngeen dund ay jamono yoo xam ni àdduna musu jur maanaam jamono yoo xam ne àddina sax xamu ko xam nga li gën a yéeme mooy nga dund ci àddina te fekk àddina xamul la yow parce que rey nga ko ba pare loolu nag ku ko mënul dégg mënu koo dégg waaye am na ñoo xam ne àddina xamul sax fu ñu dëkk ñoom nga ñoom ci yàlla lañ dëkk yàlla romb na àddina moom ala arif laa duniyaa lahu arif amul àddina wa duniyaahu li axirati wa axiratu li rabbi war ngaa fexe dund ak sa big bind loo xam ne nii dafay jóge ci xaatir boo xam ne ni dara laalewu ci àdduna maanaam du mbiru àdduna du waxi àdduna du jëfi àdduna bal sant yàlla ak jàngale dund wëllu yàlla dégg nga loolu loolu du affaire àdduna hmm. affaire yàlla la loolu la bëgg a wax war ngaa fexe ba bind ci histoire boobu loo xam ne ni àdduna sa xamu ko maanaam loo xam ne du mbiri àdduna mbiri àdduna xam nga alal la ak nangam nangam loo xam ne nii rambaajkat yi gisaguñ ko maanaam du loo xam ne dafa siw ñëpp xam ko waaye may la gu jógee ci yàlla direct muy mbóot war ngaa fexe ba sa big bi nga bind ci ngay bind mu digtale ay mbóot ak ay xewal yu neex nga jottali ko ñi nga xam ni soxla nañ ko wayu rattilu muy jàng amaamaka sa kanam ayatin ay aaya min zikri ci alquran alxakim bu aji sa big bi war ngaa dund ak moom ay jamono yoo xam ni dana la dicté bind ko ci biir histoire bi bind ci baay mu yenk wala shukra sant yàlla mu dégg loolu a fexe taxaw ak sa bind sa jamono yoo xam ni bind ba sant yàlla ci xéwal gi la yàlla defal dégg nga parce que booy bind ci ku baax nga gis ne yow ku baax kooku yaa ngi ci gannaawam bu yàggee nga sant yàlla dégg nga boo sant yàlla dana bëri looy tudd yàlla wayeb sutu mu tàllal amaama mu xayaaka sa kanam-kanam googu al waquur bi aji wegu sa jaadatal fikri sa jaadab xelaat maanaam big boobu dana tax nga mën a ويعيد مدلو إليك جمسيو بقدرة إلهية تكاس نيالا خارق خارقة بقربة حركة الأمس ينقط الدمبوبة وسباحة الحيتان أكفيك جنية في محيطي تجيجم المترامي الأطراف بأجسان نيكو أي والله مناسب لك بيورنا لا دلو ندون ديمبو دي ينغتو مانام دوندب ديمبو با غيس نغ دوندب ديمبو لو ام dundab démb lu am solo la ci teyu nit ñi yàlla tànn ci taarix ci jamono nga xam nañ nekkee woon nga nekkee noonu hmm. dana la dimbali sa tey ndax ku baax rek da ngaa ñu baax ñi nga xam ni nag mënoo baax a baax ba yegg seen maqaam war ngaa xam nuñ loolu yëngatoo démb nga roy war ngaa xam big bii dana la andil na doon jën yii di fee ci géejam gi nga xam ni duus yi sànneeku rek maanaam njëriñ yi nga xam ni moo doon génn ci ay xam-xamam ci ay waaraateem ci ay njàngaleem ci ay doxalinam mu génneel na ko xam nga géej jën njëriñ la ci war nga fexe ba xam njariñ yooyu am ann maktabatal faydati naka birob faydu bi allati bi nga xam ne ni taawud da dellu ilayha jëm si moom كلما عاد سيد الله الرديع قلق بينام إلى سدي أمي تيوان يايم يا سايو قلق دمي خما قلق بو خيفر ريم تيوان يايم بور نام يو نسو خيفر ريم تيوان يايم بور بور بور بور يو بور يو سو مريا الله مولاي قتل تلور بو دنجي يو تيوان مغاي دلو مجو بنتلا بو نياكي خم خم فوم غاي دلو مجو خلا خم خم كم نيغا خمين قلق تيوان يايم اللي دلو بيروب فايد بو تطالبكم مولاي ساكو بحقها تحقم في إضافة لبنة نتك أمول سليمة بمجو وحجر أساس أك نتك خير وقمنني دينغا خير وقمنني فوند مالا قويين بدغر وسميكين بيكتكو مانام فايد بو مونغلي ساكو مونغي ساكو تيو هم نالا تغل بن مول تي تبخ بي mool boo xam ne mool bu mucc ayib la mhm. waxuma nga dem mool bu salte mool bu nangam nga teg ko fa tegee ko fa teg bu bon yow da ngay ñaawal dangay ngay déema tilimal waaye jéem a rafetal mhm. mool bu set bu yëkkatiku mhm. maanaam participer maanaam bokkal ci tabax bi defal sa wàll ci tabax bi ana loo liggéeyal fayda xam nga xam nga ab fayda moom maanaam buñ ne la def ci sa wàll liggéeyal ko dara إلا بغا جيرن رك كوم نلا واخا ليغيال الاسلام دارا إلا بغا جيرن رك واي الاسلام موم سوخلو لا ياكو سوخلا فيد يي نون لا مي سوخلو كين ني نياكو سوخلا تين كو يالا تان نك بغا ليغيال كو دارا لوم نيو نيو سنتال يالا بو باخ لو خامن ني تي بدايه امرهم بامي كوماس لا بايدون واخني فيد بي فو مو دج سوف سي يب laa yamsikuha ahadun kenn mënu koo téye wala yuqifuha ahadun kenn mënu koo taxawal am na nag ñuy def ay pexe di ay nar ay nar pour fay ko waaye mënuñ koo fay ci commencement mbiram nga xam ni yow daanaka cause yi sax génn góof nga ne danga nga daj àddina bi yëpp tey tey wax jooju moom ku dund tey da ci teg sa bët Hmm? moo li yonentu waxoon benn la ci commencement mbiram daf ne lislaam fu weewu gëlëm yegg rek dana fa yegg manaam parce que boobu gëlëm lañ doon tukkee daf leen bëgg wax ne gis nga woote bi dana daj fépp parce que du woote bi nit woote bi yàlla la mhm. te yàlla garanti na ko dana yegg mhm. xam nga loolu ku xam fi nga jëm moo koy wax ku xam yaay kan moo koy wax demal fii rek di jéem a tappale naan dana dana daj Sénégal sax ba Sénégal dëkk ba nga génn sax ba nga dëkk sax bu yàgg bu soobee yàlla bu affaire ba bu yàggee dana fay wooteel rek ma amal alal ju la neex mm-hmm. amal xam-xam bu la neex ngay wooti wooti boo xam ne du dëgg nga ne dana daj Sénégal nga xool waxuma àddina Sénégal fenn du ko génn fenn du ko génn bàyyi dafa niroog yonent bi ci côté boobu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi ci aw xeet lañ la doon yónni Moussa ci banu Israël yonent bu nekk dafa am mbooloo mu ñu la yónni waaye yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga yonentoom gi àddina yëpp la daj wëlli boo xoolee danga gis ne wëlli bu nekk am mbooloo la yàlla jagleel mm-hmm. am mbooloo ab xeet. waaye wali boo xam ne wooteem làkk boo làkk rek am ku ko mën a làkk bokku ca kooku bàyyi rek la ko yàlla defal ci biir rek ci bitteeg ñëpp ñëw nañ tombeeg xaddis bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam doon wax ne yomal xiyaamati am na ñoo xam ne nii jege giñ jege yàlla tax na yonent yi dañ leen a ñee ñi dee ci toolu xare dañ leen a ñee te ñoom bokkuñ ci yonent yi deewuñ ci toolu xare mm-hmm. waaye dañoo jege yàlla boobu benn waaye sukk ci ron yonent bi benn sàmm mm-hmm. ne ko melalal ñu ñooñu ñooy ñan nuñ mel mu ne mbooloo la ñoo xam ne ñu ngi jógee ci kuréel yu tàqalikoo mm-hmm. askan boolewul leen alal boolewul leen xamantuwuñ sax mën naa am sax seen làkk yi déggantuwuñ waaye dañoo dajaloo ngir bëgg yàlla mbooloo mu mel noonu nag mënoo koo gis lu mooy ci kër baay wala boog na ko fa gisee doo ko gisee feneen mbolo mo xam ni dañu jógee ci kuréel yu takaliko ak mbolo yu takaliko han waa dang koy lak lak bi sax mo mënu la tont te xol bi mu ngi la bëgg mu ngi la bëgg lool te yow li ngay wax sax xamuko ko waaye dafay xool rek bëgg la ñu bëggante non di dajale bu bu gamu jotté nga dem Medina di nga gis ni hadith yonentu bobu dang ci tek sa bëtt yonentu mbolo mu yëngatu ci l'islam rek wax na seen mbir ak nuñ mel junj na leen waaw junj na leen faydi nag xadis boobu junj na ko hmm? su ko defee lu mel noonu loo xam ne yow nga teg si mool dana dem nga ñàkk see teg mool dana dem buñ ne la teg si mool dañ naa bëgg wax ne jëriñal sa bopp la sa bopp waaw mais bu la yàlla nattoo ba nga noonoo ko da mel ni ñu bon ñu jiitu rek noonu nañ lu abu jaxli noonu yonent bi ba dee jëriñu ko dara gàcc rek la ci jëlee waaye tey lislaam a ngi continuer fayda yi noonu la mel su ko defee mu ne ñu ngi sàkku nga teg benn mool ci fayda boobu bokk na ci mool yi ëpp njariñ nag nga fexe ba xam-xam bëri ci bëri ci pay bi ndax Baay wax naa ne dund na ba génn àddina kenn mosu koo yeb kenn yow nag mi nga xam ne taalibeem nga waroon nag mu ñu yebee ko ci yaw waroon nag mu ñu yebee ko ci yow Baay dafa wax ñaari sëriñ la sama sëriñ ci zaahir mooy alquran ak sunna amut amut man amut laa gis amut ku ko gën a xam amut ku ma ko gën a dégg alquran ak sunna amut amut ku ma ko gën a dégg yow ngay taalibeem nangu ku la gën a dégg alxuraan ak sunna mm. yow fekk sa sëriñ moo raw ñëpp kay da nga war a fexe nga raw ñëpp maanaam loolu ñaax la du moom boo xam lay wax yow la bëgg wax ne yow sama taalibe nga war ngaa fexe ba kenn waru laa raw ci dégg alxuraan sunna ndax ndax sëriñ bi sëriñ bi raw kay taalibe bi ñoo raw mm-hmm. waxu ko nag làqatu ci néegam sëriñ bu daan tukki la di dem ci àddina fépp daan dajeeg borom xam-xam bañ dugal ko seen mbootaay waaye ba yi gën euh, tat gën a dëgër bu fa bàyyi ñu ngi ne ngeen moom waxtaan ak moom te daaw ñu waxtaan nangu de déedéet daan waxtaan ba bëri muy jubbanti borom xam-xam yu mag yi daan waxtaan ba pare mu jubbanti leen dajeeg nag benn naar. naar bi ne ko yow sa sëriñ moo wax ne Cheikh Tidiane yàllaa ngi lépp ci jëmmam mu ne ko waaw bu yàlla nekkut ak lépp ci jëmmam lii ngay gis nii lan la mu ne lii jeexit yàlla ko fi jeexit mu ne ko man ak yow de mënuñoo rëdd dara ci barab dem yàlla nag moom du koy toxu ba mu rëddee lii ba pare fu dem naar bi taxaw mu ne ko da ngay taaya mu ne waaw da ngay jàng attaxiyaatu lillaahi mu ne waaw mu ne asalaamaaleyka kaaf googu ndax arab dana ko wax kum nag lu tax booy taay nga wax yonent bi ne ko asalaamaaleyka te kaaf goo koo jàkkaarloo nga koy wax na ko waxuma la sax yàlla waaye yonent baa ngi teew ak ñëpp jàng nga xadisu Buxaari wax ne bi bu dee fu mën a dee rek dañ indi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi mu teew ak moom kenn la ñaata mu ngi teew ne ko waxuma la sax yàlla waaye waxtu bu mujj wii nga xam ne ni moom la yàlla mujj bind mu ngi teew ak ci jëmmam te taxul mu takk sobe taxul mu takk dara tey bëccëg bii ni ñu nekk mu ngi teew ak ñëpp ci jëmmam ndax tax na mu dugg ci dara wala mu génn ci dara noonu la daan def naar ko mu koy sama gëm yàlla hmm? moom bokkut ak sëriñ yoo xam ne dañuy toog ñu leen jottali rek ne sëriñ bi wax na nangam wax na nangam wax na nangam moom dayaa wax ngay dégg muy génn ngay gis te mënoo wax ak moom tagga ko wax ji moom daf gudd sax ñaari baat ñetti baat rek nga xam ne kii du sa morom noonu la meloon ci xam-xam noonu la meloon ci xam-xam mbootaayu borom xam-xam gu ne soxla nañ ko woo nañ ko fa woo nañ ko fa nga juddoo Sénégal gi tey ba ñu seen sa baay rek moo la mos a jàngal nga mën a jaaxal àddina yëpp ci xam-xam parce que toogoo benn place dem nga fépp dafa fekk loolu wilaayatu mu ngi ci biir kon yow mi nga xam ne taalibeem la yaa ngi askanoo ci moom waroo nangu sàggane xam-xam boobu kon nga fexe nag ba dugal xam-xam ci pay bi bokk na ci mool yi gën dëgër bokk na ci moo yi gën a dëgër moo tax mu ne war ngaa fexe bind ngir liggéeyal pay bi dara wa mu ngi sàkku-sàkku gu tar alayka ci yow fi an taktuba ci nga bind maanaam faydu bi mu ngi sàkku ci yow sàkku gu tara nga bind am man ci ki nga xam ne nii tahad hadaka bàmmaale na la tahad hud mooy li yaay di def xale di ko yëngal di ko yëngal pour mu mu dal pour mu kii ki nga xam ne bàmmaale na la janaaxaaxu ñaari mbaggam ya mhm. alxanuuna taani ñaari mbagg yu am yërmaande faydu bi nga xam ne wala boog bàyyi nga xam ne kula la la yor na la di la toppatoo comme doom ju yaay ju yore doomam di ko bambaane ni yaay yërëmee doomam ni bàyyi yërëmee mbindeef fi moo ko raw hmm? moom wax na ne yonent bi xam na ne amul ku ko ëpp yërmande ci mbindeef fi hmm. loolu la bàyyi wax waxu yërëm na mbindeef de amul ku ko ëpp yërmande ci mbindeef fi mu ne wal baidu kamantana ki ma sori ak ki ma jege moo yem ci man ñëpp laa yërëm wax na ne maa ngi xool doomu aadama bët boo xam ne kenn du ko xool doomu aadama di ko bañ hmm? kon moom yërmaane gi amoon ci mbindeef yàlla hmm. kenn amul yërmaane gu toll noonu te ki ko sori ak ko jege ñëpp la yërëmoon hmm. nekk nga ko rek bët bi mu lay xool mënatul laa bañ kooku nga xam ne daf laa yërëmee noonu dimbale la ba def ci yow xam-xam bi bi nekk ci yow war ngaa bind ci moom war ngaa bind ci moom wax naa la ne boo bu fekkee da wax ne taalibe baa ngi muy dëgg amutu noflaay bu fekkee dëgg la laa wax de amutu noflaay parce que moom dundam yëpp noppaluwut liggéeyal yàlla rek la nekk woon man bu ma tukkee dem dëkk bu gàtt rek su may tukki ci yoon bi xam nga sama xel mi lu muy daj hmm? baay tukkeem yu bari yooyu du ko mënee woon ak ni nekkee mag tukki ak métti fu nekk dem na fa rek ngir liggéeyal islam fu nekk dem na fa ngir liggéeyal islam te fu mu dem xam-xam siggi fu mu dem xam-xam siggi adduna bi ñëpp duñ dof de daa am ay boromi xel boo naxee ñii it am na ñoo xam ne mënul leen nax booy naxaate doo génn doo dajeeg borom xam-xam boo ko defee rek balaa yàgg dangay dangay am gàcce léegi wala nga weeru mais moom dafa daan génn dajeeg ñëpp yow boo dee taalibe mu waratu noppalu wa yaftaxu mu ubbi amaamaka sa kanam masaamal ataay bunti may masaa mooy bën bën yi nekk ci yaram rek waaye fii buntu may lay firi al muktasab yañ fàggu woon mawhuub ak yi nga xam ne fàgg wuñ ko dañ la may noonu rek ki nga xam ne ubbil na la buntu may yi nga xam ni daf laa dimbale bu nga góorgóorlu yegg ci ak yoo xam ne dañ la koy jox rek te sub te góorgóorloo waaw ndax ne taalibi bàyyi la du loo mën a góorgóorlu ba am ko mm-hmm. waaye lu la yàlla di may rek lay doon lu la yàlla di may rek lay doon mm-hmm. Mm-hmm. balaa ngay xam njariñ li nag nga dem ba àllaaxira xam ne yàlla may na waaye dina def ci yow jikko yoo xam ni da nga ci góorgóorlu ba am ci yeneen may ki la defal loolu war ngaa bind ci moom ku la maa xabar saa yu uppee na samatun ngelaw lu neex awin xadarat wala mu tuuru abratun ronqañ aw taraqat wala mu fëgg fikratun aw xiraat aw aw taraqat wala mu lakk jidaaru wala mu dégg nga mm, daanu jidaaru samti miir baa moom noppi la wa ak dal am tan ngir bind wa xasratan ak rëccu saa yu ngelaw uppee war ngaa bind ci moom saa yu ronqañ tuuroo war ngaa bind ci moom saa yu xalaat jugee war ngaa bind ci moom saa yu mm, miiram noppi daanoo maanaam saa yu miiram noppi daano mooy saa yoo commencé wax rek ah ndax rëccu li nga nopp la nga ñàkkoon bind ci moom ak di bind ngir mbëggeel saa yoo wax rek war ngaa bind ci ko maanaam yow wartu am benn temps lu may nga bind ci moom yaa ngi dégg su ko defee kon paas bi ñu jàng lam ci bëgg a wax mooy taalibe bu nekk war naa xam xamle sëriñ boobu mooy kan taalibe bu nekk ndax ñi ñëw ci kanam man koo xam amma ma kuntu mu ne waaye nag la ma nekkoon ataman naa di ko mbébét wala mu azalta dañu ma di ko mbébét فهو أن يقيد مي مدغل الله يا الله خيرا مني كما جن وأقدركم أبكاتن وأوفى مني كما جن مثل لي وأصبركم دقمون وأوسع معلومات أكم أبو أخم كم وأجدر أكوجن يي لي ممن سنين أخم تغص فاس نبيم شيئا والحمد لله ينسن تيالا ساعة الفائدة التفائدة من أصول تأي جن وأشبال الغيدة أقدومي غطبة غطبة يكرو جن أقدومي جن مانا موني من mbébétu moon bind bi ma def ko bëgg moon koo def li ma bëggoon mooy yàlla dogal ku ma gën ëpp ma kàttan gën maa matal lii dàq maa muñ ëpp ma xam-xam te loolu nee na bëri na fees na tëb ci faydu bi ma ñu mel noonu fees nañ fi gaynde yaa ngi fi doome gaynde yaa fi maanaam boroom xam-xam yu mag yaa ngi fi seeni taalibe ngi fi ñooñu de su ma sañoon ñu jiituma ci lii li yeddaxoo ngir ñu teg an niqaata tomb yi ala xurufiha ci ay xarafam wa yusbitu ñu saxal wa yusabitu ñu saxal alkalimaati baat yi wal jumali ak jumle yi wal maani ak maanaa yi fii sufufiha seeni sappi lil kitaabati ngir bindaani cheikh si sëriñ bi wa faydati ak faydaam maanan aw sax maanaa bu gën a yaatu amaq ak bi gën a xóot wa ashmal ak bi gën a daj wa asdaq ak bi gën a dëggu mooy su ma sonoon yàlla dogal ñeneen ñu bind ci sëriñ bi ak faydam ndax liñ ci bind mooy gën a yaatu mooy gën a xóot mooy gën a matale mooy gën a dëgg illaa na xadaralu mooy ne dogal bi ubihi raadin gërëm naa ko an jabrusa mooy loolu génn min maknunaati ajzi ci lañ nëbbu ci samay lott wana waa qisa ahliyat yi ak la nga xam ne ni dafa manqué wala boog manqué sama yelloo dégg nga maanaam maanaam lott gi ma lott te yàlla nëbboon ko ak ñàkk yàlloo gi ma ñàkk yelloo bi ci lu mel nii ci loolu la yàlla dogal mu génn lu ciy génn maa kuntu ahtami la nga xam ne maa ngi doon muslu billaahi ci yàlla minu ci moom dama doon muslu ci yàlla mooy lii ma njëkk koo def di la bëgg naa ñu bind ko waaye su ma sañoon keneen bind ko waaye man ma bind ko moom dama ko doon daw mais yàlla dogal ak lott gi ma lott ak ñàkk yelloo gi ma ñàkk yelloo lii ndekk lii ci man lay génn man man maa ko a bind falam ara gis ma buddan benn remplacement tajaaxuyin ci réer réer lu waaqiin gi aji tabbi maanaam mënuma jëlale ba ñàkk ko def nga xëy na yàlla dogal na ma war koo bind mu ne faqat daxaltu dugg naa zaata maratin benn yoon ala sayidi sama sangal xalifa Cheikh Ahmad Tidiane Ibrahim ataala yàlla yàggal baqaawa desam wa nafa yàlla jëriñ bii ci moom yal na yàlla leeral raw doom yàlla yokk ay mayam taas ñu ci barkeem yaa rasulullahi sallallahu alayhi wa jamono bi nga xam ne xalifa bi muy dund nee dugg naa ci moom benn bis mu ñaanal ko yàlla yàlla yàggal ko fi te jëriñ ci jëriñee ci moom ba léegi yàlla na yàlla continuer di jëriñee ci moom te yokk ay maqaamam fële ci barzax mu ne faax bare nii mu xibaar ma an daa daayin ci woote goo xam ne kaana nekk na wajjahu di ko jublule li saayir asaabi cheikh ci mboolem taalibi sëriñ bi mu ne ba demee ci xalifa bi sëriñ bi daf ko jox leetar boo xam ne ni ci taalib yëpp la jëm yastaxisu mu ngi leen di ñaax fii ci moom alal kitaabati ci bind an xayaati cheikh si dund sëriñ bi radiyallaahu ndeke lii kon xalaatu ñëpp loolu xalifa bi leetar bi lim ci bëggoon mooy gaa yi bind ci taarixu baay ndax dañ ci war bind adilaaw yàlla ko yàlla gërëm wa faydati ak ñu bind ci faydam nga xam ne yakun dana nekk moom loolu ñu bind marji an delluwaay lil maas gi ñëw ndax loolu ñu bind ñuy ñëw man cee jële man cee jële moo tax farata la fardu ayni la ci taalib yëpp cere bàyyi ñu firi ko balaa ay nit di ñëw fireegu nu leen neexee moo xam ne dëpp lu dëppoo wut ak njàngaleem baay farata ñu bind dundam balaa ay nit di ñëw di sos ne nii la doon dundee fekk dundee wuta noonu téere bi nag defe naa ne defe naa ne delluwaay la mm-hmm. waaw ndax ci ndigalu xalifa bi lañ ko bindee te mag ñëpp jàpp nañ ci yaakaar la وناول ني مو جخ ما نسخه بن كيت من مذكره النداء تي كيت ييغا خامي تي لون ووتيل مانام مو جخ ما من بن كيت بن ليتر دا وكان نكون ذلك اول علومي دي نجل بن سما خام بي تي لون بوب لا دو نديك خام لون موي ليتر بو مي يوني طالب يي فور نياخ لين ني بن سي باي خام مو مونكو دون خلال مي نغا ديبونا خليفه بي موم مونكوي خلال بو موم دوخنا من ففكرت ما خلات في الخلاص هي من مچو منا من دخل نار من دم دم دم بين مو نا باي جاي بين بس كبرم خم خم بيرني فيصل باب ونك بنتي في مسدود عندك كوتك مو بقي جن دا ورك بنتك بنتك من ما ريح آه ما خم نلاقي بين درج موسس أنا مم سيتي عشان نيمكو جيسي خم نلاقي مم كوره بين تمام لور بقو كون من وفقة مقلار في الإقدام يتشي صن فيصل الرصيد العلمي تي دجل قم قم بمو منا وخي كأوون كأود الجفر رصيد ما لنا أمتش بانك بغي يمينو وانا أمم أم لو خم نلي من نجي سكون لكو بو وقت باي مني دف كو جف أسكا نت كو مغ وقت موم يوم منا ويوم بوت يوم بوت ah damaa bëgg a daw ñu tëj bunt bi song des ma bëgg a song te li ma yore bëriwul ci xam-xam fas tas mantu ma sàkkoo néewloo duufloo war sama néew was tëj daytu ma sàkkoo mayloo xalami sama bit wam ta taytu ma sàkkoo war saxawatal himmati gannaaw yitte al ahmad yeegi ka ahmad was tax daytu ma jubloo bi chafii bariyati ci yonent bi nga mooy ràmm mbindee mu ne ah ma xam ne maa fi xam naa ne dama néewi gaa waaye sama néewi googu moom laa jàppee sama duuf xam nga néewi ak réew du benn maanaam li ma yor daanaka du xam-xam waaye moo fi sës ah ma ne sama big bi ne ma may lu ma mën a bind rek ma jéem ma nag yor jikkoy yittee Cheikh Tidiane ko amoon yitte la woon bu soobu waan mbir seen mbir moom sottiwul doon jàmm ma jéem a ñaan yàlla mu gind ma may ma ci darajaay yonent bi bu ma mën a bind lii ma bëgg a bind dile yàllawu ma ko dile xam-xam bi ma teewu ko badaatu ma commencé astaj moo di dajale chataat yi la tàqalikoo ci man maanaam ah, yi nga xam ne xam naa ko ci histoire am tam tàqalikoo asaani amaana man an akuna ma nekk dimna laaixatil ahbaab ci biir kayitu soppe yi eh, ci biir kayit gañ bind soppe yi alladina ñi nga xam ne wajjaha جبلوا لنا إليهم جمسنهم الخليفة خليفة بي موي شيخ أحمد تجاني يالا يالا يوكلي رب أعظم مهمة نيتي بيغنا كوي وأن بلا مقصد أجبل واي بيغنا فور من مكو ماسي لما خمم نيت مليكو دجلي من نام يالا بوري ما تنينغا خمم ني خينا نيوم لخليفة بي سنت ميشن بو موي نيو بني تبا وعصاني أمان من بعد ذلك غناو لولو أن أوفق ñu dëppale maa لتلبيه غرض مويو بق بق لشيخ يا سما سرين وابن شيخي سما دوم سرين الخليفه القائم كاجي تخو بالله ان شاء الله امانه امانه سمو تي بنده يال ديمبل مو دبل مو نجو بل خليفه بي بوغون سي من موي سرين سما دوم سرين يالا من كو دغ مانا امانه بومو بنده يالا ما ديف مو نيه كو رك واي داف دين سوغ Eh, kon lii moom bëgg-bëggam la woon tombeek mu dugg ci xalifa bi mu sant ko su ko defee mu daal di ci bind